wax tam ci endettement wu Sénégal bor bi euh, jur na fi coow euh, surtout sous le président Macky Sall Ousmane Sonko itam foofu yëkkati ay tuuma yu rëy teg ci kawam ñu jëm ci plan boo xam ne également ñu bëri ñu ngi wax ne nee nañu ñoom ci réew mi lañuy ñuy jëlee xaalis bi mais am na ci borom xam-xam ci àllu koom yu ne loolu mënul nekk faaw ñu lebi boru Sénégal tey euh, ni mu diisee ci réew mi ci askan wi nan nga ko jàngate ak lan nga jàpp ne moo ciy solution. heureusement nag que quelque part on a des ressources yoo xam ne ne suñu ko mënee tracé ni ñu ko war a tracé suñ ko waree gérer ni ñu ko war a gérer war nañu permettre que ñu mën a fay suñu bor. pétrole et gaz bi ngay mais on n'a pas que le, du, du oui, pétrole et du gaz. Bien sûr. va reposer un autre problème maa ngi lay wax sànq ne la président Abdoulaye Wade dafa amoon ñaari préoccupation te daf ci waxtaan ak man confirme mais tiis ma ko. Hmm. mais problème mu feer bi daf ci bokkoon. moo doon suñu suñu relation ak euh, ArcelorMittal mm-hmm. kooku il faut que ñuy xoolaat ko bu baax parce que comment tu peux aller au tribunal arbitral de Londres ñu jox la presque deux mille milliards nga transiger à combien les gens disent que moins de cent milliards mais si c'est le cas antipatriotisme bu mel noonu musiba naaru laay la. Mm-hmm. fer bi ñu yore dañ ko soxla. Sénégal tey zircon am nañu énormément de choses. yoo xam ne ne tey suñu suñu ko sellalee suñ ko tegee ci siraatal mustaxim mais dafa ñuy war a mën a permettre ñu bañ a mais ñu mën a am les moyens de notre développement képp ku ñuy woo contrairement li dal tey le Congo dootu leen ñëw ne chinois yi ñëw leen ngeen jël mais dañ leen di wax ne lii am ngeen technologie pour ñu exploiter ko. mais dès l'instant que ñun ñoo ko moom on accepte cinquante cinquante mais cinquante cinquante yi yéen cinquante pour cent yi ngeen di jox dafay bokkale transfert de technologie ak mooy seen cotisation kon daf leen di permettre aussi ngeen andi xaalis boo xam ne ñun ñu cinq yi nañuy fay c'est-à-dire lépp ci négociation yi la ak du patriotisme mais soo amee ay njiit yoo xam ne seen bakken moo leen jiite xalaatul lenn pour s'enrichir day poser problème affaire u ArcelorMittal bi daf ma mais dafa naqadi président Abdoulaye Wade bokk na ci mais mais daf ko naqadi affaire Sonatel daf ko naqali parce que patriote la woon damay ñaan yàlla personne n'a le monopole du mais ñii tey il faut que ñu rendre ñu compte sur tout ça c'est important ArcelorMittal daf ñu tardeel ñu yóbbu ko tribunal arbitral am ay xaalis ana xaalis bi tey ak lan lañ ko négocier am na yenn contrat c'était normal parce que benn moment les gens ne voulaient pas que euh, lépp loo xam ne ne dafay donc ay ressources euh, yi nga xam ne c'était par rapport à terre ay ay ay ay ay euh, gaz ak pétrole occidentaux yi bëggatuñ ko woon mais on a fait aujourd'hui des compromis avec des Australiens pour mun produire li ñu mën a produire mais tey fii ñu toll tey il faut que gars yi jël seen responsabilité bu mu mët sëkk. jël responsabilité bi mooy les ressources que nous avons ñu sellal ko teg ko ci siratal mustaxim ñëpp dégg temps yi li ñuy wax ci affaire kii bi or bi ñu ne génn na fi ak fële génn na fi. ay <laughs> nga waa ji le na que moom mosul transféré loolu. Hmm. ay transu ay deux milliards cinq milliards yooyu su yàqul du defar. kon on a les moyens de notre développement. pour hmm. autant effectivement qu'on a qu'on ait des dirigeants comme principal souci la justice. li ñu bokk ñun ñëpp ñu teg ko ci Siraatal mustaqiim. Hmm. lu Samba ak ba moom lu la neex nga def ci. kon loolu c'est possible mais gawma aussi le développement endogène par nous-mêmes. si hmm. amul. baaxul amul benn réew boo xam ne. nekkuloo ci interdépendance. surtout que tey on a le couperet. banque mondiale ak fonds monétaire international yi mhm. nekk parce que l' essentiel de notre créance c'est par rapport à ñoom kon munoo yeewu sa hôtel génn ci ñooñu mhm. mais tu as possibilité aujourd'hui ñu am ci yow confiance par rapport aux actes qui sont posés wala leen aussi yi nga secteur sociaux yi nga xam ne ne moom nga war a développer mais Ablaye Wade bi mu ñëw taxaw parce que moom laa gën a xam moom laa liggéey mhm. mais quand il quand lan la waxoon banque mondiale ak fonds bi mu bi muy teg bourse di jox étudiants yi daf leen mais investissement utile pour mon pays. au départ les gens ne le comprenaient pas parce que sur l'ancien régime gars ñemewuñ ko woon. mais lui il mise misé là-dessus ne daf koy def parce que subvention ak bourse yooyu muy joxe investissement la daf ci taxaw. kon loolu mu def su ñu amee ay njiit yu taxaw ci loolu continuer ci loolu taxaw ci loolu daf ñuy joxal daf ñuy jox ay résultats yoo xam ne ça doit pouvoir être conséquent pour ñun. ni Macky Sall géré koppari réew mi pendant da nga gis ne am na impact bu négatif ci wàllu emploi ci wàllu aussi euh, tolluwaay réew mi ci wàllu koom xam nga ci dara parce que acteur économique nga mais aussi ci suqaliku gi ci askan wi gis nga ne am na impact boo xam ne baaxul boo xam ne tey mun nañ koo ko coller euh, moom ak régime bon li ñu mën a wax mooy peut-être endettement bi okay. parce que euh, tontu na ci bërka démb hmm. nee na moom personne amul woon ressource stable yu mu ko permettre mu mun développer investissement yu mu doon def mm. il s'est endetté pour pour pour, pour investir kooku kenn mënu ci dara parce que y des réalisations BRT ba ngi nii mu neex mu naqari mu ngi fi ak terre terre baa ngi fi donc yooyu def na ko mm. mais on constate aujourd'hui mmh. yo y des efforts à faire dans d'autres secteurs où effectivement on a eu quand même des problèmes. Mm. Ces secteurs-là, c'est surtout le médical. Mm. À moment, peut-être que tu me diras par rapport à un contexte, on a plus privilégié euh, les forces de défense et de sécurité mm. au détriment aujourd'hui de, de, du social. Hmm. Beaucoup de gens et beaucoup de maladies depuis Covid bi hôpitaux yi. Hmm. mais le minimum amu fa ba léegi hôpital Le Dantec parewul aujourd'hui qu'on il faut qu'on l'accepte il plus de médecins aujourd'hui ñi ñi ñi ñi ñiy dem xarmat moo ëpp ñoo xam ne ne on a financé les études mais dans les hôpitaux pour nga gis leen fa c'est tout problème mm. hôpital tey soo fa demee lépp da nga koy jënd kon ci secteur boobu dafa sooxe mm-hmm. y a beaucoup de xam ne qui n'ont pas été donc man euh, lépp en soi bonul mais mm. ni ngay lebe ak fi nga koy def voilà j'aurais souhaité que ñu am un peu cette culture euh, slave les norvégiens ñoo fi andi di teg ay fonds de souveraineté pour les génération à venir pour seen sët yi ñu gisagul ñoom. Mm. penser aux générations futures. génération future. Mm. est-ce que no dirigeants war nañu ma euh, lan moo leen empêcher ñu mun a xalaat lu mel noonu régler le présent mais avoir cette vision pour demain. Mm. y a plus de réserve foncière génération yi ñëw fu ñu jëm. Macky Sall ci ressource euh, li li tukkee ci pétrole beeg gaz bi am na lu mu ci ne woon daf koy dencale génération. fonds souverain mais mais mais xooloon man ci ci ci ci ci ci li may wax léegi le foncier. mais amul kenn sa doom mais yow soo moytuwul sax yéen pour ngeen am kër Dakar day metti <laughs> dëgg la parce que amatul. Mm-hmm. ça a été capté par par des gens moom ko. Mm-hmm. Mm-hmm. au xalaat ne que mais seen doom yi dañ ci bokk. lépp nga accaparé ko mm-hmm. su yàqul du defar mm-hmm. kon vraiment lépp c'est pas mauvais en soi mm-hmm. mais fa nga koy teg c'est important et je pense que par voie référendaire c'est important que ëllëg ñuy wax suñu dirigeants yi ne leen que am na ay CID d'endettement yoo xam ne Sénégal yi dootu ko nangooti suñ ko waree voté ñu voté ko par suñ ko waree def par voie référendaire ñu def ko pour que ñu bañ ñu ci dugal suñu génération ci ay tooxi dina parce que indépendance soo ko amul yaa am mais bëgg nekk populiste war a doon man ñëwuma Mali ñëwuma eh, Guinée Conakry ñëwuma Niger Sénégal balaa ngay xam ne ne tey am na lu fi am mais nga dem ci dëkk yooyu mhm. c'est des pays sovage et primitifs ñaanu ma yàlla mën ñu tollu foofu mhm. kon alhamdulilah suñu li ñu yàlla may loolu on a du know-how des mooy que gars yi gën a sellal moomeel yi ñu leen mhm. dënk yorin bi waaye ñu ngi sax euh, ci reddition des comptes boo xam ne tàmbali na et bu ñuy euh, wax itam reddition des comptes souvent xel yi du dem sax ci dañ la dénk rek dañ lay laaj noo yore woon mais euh, ñëpp dañuy gëm ne